épidémie wala pandémie maam catastrophe ñu yóbbu fa ñooñu les hôpitaux du woon loolu pour ñoom donc ces CTE là war nañ leen créer bien avant même Covid bi di ñëw ces centres la loolu mooy wax bi maintenant lan moo xew di feebar bi ñëwee euh, ñu commencé déloger malades naturels yi fa woon dans les hôpitaux la euh, di fa indi ay Covid ay cas de Covid mm-hmm. maanaam finalement Covid bi dafa comme ni ñu ko doon waxal le Covid avait mangé presque tous les hôpitaux ba finalement aussi même ñu waruñu en constatation régulière ñëwatuñu ñeneen ñi ils ont le temps avec leur comorbidité daal di dee seen kër tranquillement wala seen maladie daal di gën a chronique loolu aussi dafa mel ni moom moo fi nekkaat parce que bu ñu demee ba amatuñu place or war na am ay lii yu xam ni dédié spécialement au Covid dafay am ay difficulté maintenant nag am nay solution de rechange yu am lu ñuy wax solution de fortune angaaru pèlerin yi ñu ngi koy réactiver dégg naa géréw aussi ñu ngi koy réactiver ak yu mel noonu yëpp mhm. yooyu yëpp c'est des mais en attendant malade yi nga xam ne ñoo war a dem hôpital parce que centre de santé mënu ci ñoom dara ñi poste de santé ñoo bu leen ñoom fa la ñu war a mun a dem ñooñ dañoo war a dem dans à l'hôpital sans que Covid gêne leen wala ñuy def un malade Covid di ko def à côté d'un malade bu nga xam ni amul Covid. c'est clair alors as euh, ñu ñëw ci révision des listes électorales euh, mu mel ne décret bi génn na euh, ñu war ko door le 31 juillet war ko wëyal ba le 14 septembre mais ci révision bi dañu ciy taxaw tuuti. ci ñi nga xam ne moom lañ dippee les primo votants euh, euh, jàppoo ne les primo votants sont hypothéqués euh, ci li nga xamante ne mooy sa décret bi nga xam ne génn na su fekkee ne da ngay dem inscrire carte d'identité inscrire carte d'identité biométrique door a dem dans les commissions tout ce parcours pour que nga mën a am li nga xamante ne moom mooy sa carte électeur pour nga mën a voter merci Fatou Euh, je ne pense pas je ne pense pas parce que en vérité li ñu war a wax Sénégalais yi mooy on mënoo bëgg lii ba pare bëgg la ca des soo ko dégloo ñun bi ñu nekkee ci dialogue bi euh, même ñun dans l'opposition bi ñu génnee le livre blanc dafa ci am parti bu am solo bi nga xam ne dañu wax ni euh, l'état civil sénégalais n'est pas fiable et que problème bi ñu am ci fichier bi yépp vraiment kayitu juddu yi la woon et c'est l'opposition moo joxoñoon baaram loolu donc tey ji opposition bi dafa war a saluer le fait que inscription bi maintenant ñuy delloo ko ci carte d'identité parce que dit revendication la bi nga xam ni ñun suñu bopp ñoo ko waxoon ba ñu nekkee ca opposition ba il faudrait que les sénégalais aussi euh, ndey dime li may wax ni mhm. ñu xam ko ci télévision lay wax je pense que doo dégg benn opposant bu vraiment sérieux buy ñëw di remettre en cause loolu li ci am solo rek mooy na ñépp taxaw que ce soit société civile que ce soit opposition pouvoir nan la ñuy def pour sensibiliser ces jeunes ba pare xool nan la ñu mën a egg ci seen carte d'identité mais moo gën aussi ma gën aussi Guèye. am problème problème de communication parce que quand mhm. même ça fait 48 heures mhm. sont 12 heures bi décret bi mais yooyu nga xamante ne tey. c'est ah. le rôle de l'opposition du pouvoir de la société civile. Mhm. les primo-votants amuñu ko. ces informations là. en vérité euh, vraiment les hommes politiques des dañuy nekk ci ay détails te duñu dem vers l'essentiel dès lors dañu waxoon ni dans le jalo tous les points de consensus dañ koy dugal ci code électoral bi mais les gens dañu waroon gis lii ñëw xamoon nañu ni état euh, kayitu juddu fiable ñoo ko wax ba xeex ko tëdd ci xam nañu ni bon révision bii di ñëw ci carte la am na ci ñi nga xam ni teel nañoo préparer loolu nag te boolewuñ ci coow parce que xam nañu ni effectivement doo dégg kenn kenn kenn kuy ñëw fii di ko ci wax maintenant ce qu'il faudrait faire mooy il faudrait que comme ci gendarmerie la ak police lañ koy defee il faudrait que ñu mettre un dispositif bu am solo ba pare ñu surveiller ko avec société civile ñu bañ a bloqué am ku ma am ndey am ku ma am ndey ci primo votant avec ce délai est-ce possible avec délai de 45 jours mm-hmm. moment boo xam ne ñu ngi wax Covid c'est-à-dire que les facteurs mm-hmm. les facteurs monsieur Guèye période de nawet mois d'août mhm. élèves yi am baccalauréat war am dix-huit ans war a dem defi seen bac tous ces facteurs mhm. est-ce que loolu état jël na ko en compte quand même pour ñu xam ne euh, li tax ñuy wax ne les primo-votants sont hypothéqués c'est tous ces tous ces facteurs est-ce que yooyu jël nañ ko en compte également ak le délai qui est court non jël nañ ko c'est-à-dire que délai bi court na courul il faut faudrait que ñu xam ni lii moo mënuloon ñàkk ñëw na yan mesure d' accompagnement moo ci war a am ñun ñëpp lu ñu taxaw pour liggéey autour de ça et je pense que c' est ba pare les primo-votants su fekkente ne def nañu jëm ci ay élections locale mais dans quelque mois incha allah rabi yeneen élection ngi ñëw on pour pourra vraiment absorber ce gap la ba pare rendre beaucoup plus fiable sa fichier la mais gis nga ndey dime ci ci ci ci fichier ba la ñu xooloon mais la ca am ci ci kayitu juddu dafa doy waar ay né au Sénégal ay numéro yi nga xam ne existé wul dafa bëri affaire donc je pense que ñëpp dañu war a tag dañu war a vraiment même bu fekkee le lot de primo votant bi ñuy versé ci fichier bi nombre bi dafay wàññeeku parce que presque mat nañu un million bu dee même cinquante pour cent yi fexe nañu ñu wóor ba pare ñu dugal leen ci biir affaire bi ba pare dàqe ko loolu mooy gën parce que code électoral bi ak processus électoral bi dafa transcender l'opposition et le pouvoir c'est pour le peuple ça aussi je tiens à le dire di xaar kenn ku contredire affaire boobu mais nag il faudrait beaucoup sensibilisé il faut aussi mettre les moyens pour diligenter ça pour que mu bañ a benn blocage. mais je pense que c'est une bonne solution. ci élection locale yi. Euh, nan ngeen ci fas yéene taxawee. puisque yaa ngi koy fàttali léegi que ni léegi da ngeen a tax rip ci biir mouvance présidentielle bi yéen a ngi ci mburoog soow bi nan ngeen fas yéene demee ci élection locale yi di ñëw. waaw euh, la volonté du euh, volonté président Idrissa Seck ma koy nuyu au passage encore volonté mooy. ni mu ñëwee ba déggoo ak président Macky Sall pour intérêt dëkk bi bu doon sagoom élection yi ñu jëm dans les 553 communes du Sénégal n'est-ce dans les cinq villes vraiment ñu nekk njabootu Macky Sall ak njabootu idris Seck sur le plan politique. bu doon def def mburoog soow. bu doon sagoom c'est ça la volonté. bu doon sagoom maanaam yéen moom waa réew mi pare ngeen ci loolu. sa volonté mooy ñu ànd àndu nawle. Mhm. parce que ñëw bi nga xam ne ñun dañoo ñëw bu leen fàttin Idriss un million de voix ba ñuy ñëw président Macky toog na ci ay communes yi nga xam ne daf ko gagné li ñuy tuddee commune gagnante à plus de cinquante pour cent benn lim bi nga xam ni yor na ko. ak i département bi mu yor waaye président Idrissa Seck bi mu ñëwee ah yëf yi dafa gën a xumb. sur le plan commune et sur le plan département te ñun lii suñu sakk mooy bu ñu ñëwee ànd ak moom vraiment. résultat yi ñu fi fekkoon résultat yu gën a jëm ca kanam. mais c'est une volonté politique. d'accord Thiès yéen ko gagné woon. après ngeen jox ko Talla Sylla donte moom tamit mi ngi ci biir nguur gi mais neexootu leen ndax da ngeen koy bàyyiwaat mu dem wala da ngeen di bàyyi nguur gi euh, parti au pouvoir daal di tànn ku fàtte ngeen tànnal waaw mais déjà excès guñ ci loolu mais je sais très bien mhm. am ñii lu ñu bàyyi ñii am lu ñu bàyyi parce que en vérité euh, maire yi nga xam ne ñoo fi nekk xam nga ni lim bi li ci ëpp dañoo nekkoon ci benn boor mais ànd nawle bi nga xam ne moom la ñu war a ànd n'est-ce pas tout à fait au sommet je sais que président Idrissa Seck Macky Sall ak yeneen ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar parce que ñun bokkuñu Benno Bokk Yaakaar mu sommes dans la grande majorité présidentielle dañ ko waxtaane waxtaan bi nga xam ne bien que c'est très compliqué parce que dafay am expression de leaders locaux yi nga xam ni intérêt yi dafay xaw a sore ak sommet bi moo tax lu xaw a compliqué la mais je suis très certain que euh, ñu wax kenn du toog ci li nga gañe woon rek ni yaa ko moom bàyyi leneen lu ne mën na cee mën ngaa gagné da mbir ñu gis profil gis leneen léegi jox ko yaa ngi yaa ngi nuyu léegi Idrissa Seck euh, moom ci lan la nekk parce que wax ci bari na bëgg nañu xam si lan la nekk jàmm ak salaam pas plus que hier il a instruit fa mu nekk le secrétaire général du parti. fan la nekk Babacar. ma nga ma nga bitim réew. fan ban dafa feebar ñii nee nañ dafa am ay jafe-jafe a jàpp. comme ko fa ba non doon na baax nag doon na baax. non na ñoo xam ne ko bëgg. c'est très damay dalal xelu Sénégalais yi. xam nga ñun ki ñu àndal ak man mii as Babacar man duma ma layal kenn Fadab. Mhm. c'est-à-dire duma ma xamul du ko wax du ma layal kenn li ma mën a wax man te xam ko la xamul duma ko wax mooy bis bi ajjuma bi mujju avant muy dem fa mu dem. fu mu dem. ma ngi bitim réew. ma ne ajjuma bu mujj. Mhm. ba muy dem. te am naa ci ay seede yu wóor. Mhm. ñu mu laay baag sabadoor bu weex ba ca conseil euh, économique social dama ci sax am anecdote bu ma neex parce que dafa am un militant moom tamit Sarr bu jógee ca Dior euh, Diofior Euh, dans les îles du Saloum ñëwoon pour gis ma ci conseil bi en tant que chef de cabinet ma toog ba si ak mu woo ma téléphone ni ma chef de cabinet mën na koo mun na soxlootuma la gis ma ne ko lu tax mun ma parce que je viens de voir le président Idriss Seck fekk nit muy doo doog a egsi ma Diallo ca Kër Massar aussi même chose quelques jours après la jël ay bagaasam cundum daal di dem. et les rumeurs et les rumeurs Babacar. et les rumeurs sur sa nga ñu ci mën a wax. Eh, ah. dem na. xam nga tey jii. la c'est-à-dire que dañu bëgg nga. bàyyi ma benn benn dama la bëgg wax ni la président Idrissa Seck. nit dong la nag ah. lu wow dafay tooy lu fi tooy rek dina wow. te tey jii à l'heure où vraiment. nit ñi waxuñu feebar ni ko sëñ ndey saan suñu sang boobu xool rek ni Sénégal ñëpp feebar nañu ba wér dee rek a ci des. ñu commencé di ko gis ñëpp feebar nañu ñëpp a feebar ba wér dee rek a ci des jàpp leen ni président sa Seck li ma leen mën a wax daal mooy euh, liñ ko jiiñ bu fekkonte ni mu ngi ci moom ñun ñëpp dañ koy biral xam ni ni dong la nag. Ah, te ñun suñu ay biir kër mën nañu fa am sax ñu feebar waaye daal li ma leen mën a wax sénégalais jàpp ko entre nous kañ lay ñëw ñu mën a jàpp le retour ah déedéet euh, njiitu parti réew mi bu fekkee ne kilifa gu dem quand même war nañu mën a xam kañ la dem ak kañ lay ñëw bu fekkee yéen a ngi am ay information même si vous n'avez pas la date nga may liggéey muy sees ba presque sama kër laa ëpp lu may nañu personnel bi partout ah nañu personnel bi mm-hmm. mesures yi ñu ngi koy respecté pour liggéey bon fa mu ne jàpp leen ni tous les jeudis on a une réunion de coordination par télétravail te mu ngi bokk ci liggéey boobu. lan la Idrissa Seck yokku ci biir euh, conseil économique social et environnemental lan la ci ban lan la ci indi parce que ñëpp gis nañ ni kuréel googu noonu amul njariñ askan wi lu joxe ay avis et sax bu dee avis la est-ce que am na lu ñu proposé ci Covid 19 bi. tout à fait gis nga li mu ci yokk yaakaar bu rëy la man mii di wax ak chef de cabinet laay doog a xam luy conseil économique social pour wax la wax dëgg la mais gis entre nous. am na ay indicateurs yi nga xam ni man ma fekk ko fa